asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum sama mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu man la Adja Kumba Mboor Njaay soxna Alaaji Njaga Mbay maa ngi nuyu Sénégal gépp ah di nuyu sama doom yi ñëwit seet si ma di nuyu waa télé bi di nuyu Sénégal di ñaani jàmm ci réew mi yal na fi yàlla wàcce jàmm suñu senegal gi coow leeg lépp yal na ko yàlla def muy mel ni ndoxum galaas jàngoro yooyu ñuy dégg yal na ko sa borom saafara ba yàlla bu mu si doom ya na fa am taw ñu ne faat yal na nu bokk ca ñooy mucc ak mbooloo mi jullit ci barke Seydina Muhammad ah bis bu metti ci man bis bu tiisit ci man ndax waxuma diggante jëkkër ak jabar mais man njaga sama nijaay la mook sama yaay bokku baay di sama nijaay di sama xarit bëggoon ma nag lool tegoon maat foo xam ne man naa ne moom rek man la fa tegoon ndax yëg gumma yëg ak bëgg gumma bëgg ak wéttili gumma wéttili ba ma ko manqué xam naa ne feeñ na ci man ndax wéet naa wéetaay boo xam ne gaa dootu dañ parce que Seydina Muhammad ndax nit ak genn wàllam la dafa nekk sama genn wàll ndax xarit toujours da ko daan wax danaan xarit lu ñu xar-xaraat ko la te lu ñu xar-xaraat ko dina am lu cay ruuse looloo cay ruuse mooy nekk diggante nit ak xaritam mooy wax bu waxantu yu sew sewaan yi am ci diggante nit ak nitam moo tax xarit ñu naan la xarit bul ne xarit sama genn wàll ngay wax njaga ku ma laaj ci moom dinaa sawar ndax nit ku gore la woon nit ku baax la nit ku yaru la nit ku yaatu la amoon na tam diine am na lislaam am yërmaande tam ci doomu aadama kon jili ko ku ma ci laaj dama ciy sawar bis boobu maa ko jox mu reer nu toog di waxtaan muy seetaan ndongoloo ma toog nii muy naan boisson ma toog nii ma sama bopp teg ci kawam mi ngi toog ci saal bi ma fab sama bopp teg ci kawam muy seetaan Ndongo Lo Ndongo di way ba ci yàgg mu daal ne ma nii rek de ma ne ko naan mu ne ma àdduna nii rek ma ne ko waa luy nii rek mu ne ma nii rek mi ngi may misaal ne ma nii ñu tege Ndongo Lo noonu lay demee ëllëg ma daal ne ko ah bilaay njaga yaa kii mu daal ne man sax de damaa liw ma ne ko liw mu mun daal dama liw sama yaram bi dafa liw sedd guy ma ne ko ah xaaral kon ma taalal la pour nga mën a am cuuraay tuuti ndax nga tàng mu ne ah jar na ko ma ne ko ah, rek boo bëggee ma defaral la loo ci bëgg rek waxal mbay ndax yaay sama xarit mu daal di ree jóg génn taxaw ci balkon bi ba ci yàgg mu dellusiwaat toog ma jóg di dem mu xool ma xool ma ci kaw ba ci suuf ma continue wàññeeku waat ma di ma xool ma ne ko waa yow nijaay loo may xoole ni suma ma masaan di ko tooñ nag nijaay laa ko wax nijaay loo may xoole mu daal di ne dara dama laay yërëm rek ma ne ko loo may yërëmi mu ne dara walaay ma daal di bàyyi diggante bi foofu ci laa gëj a waxaateeg moom ci yu jëm sax ci loolu maam nag naqar lool am mbetteel it lool ndax bi mu jógee loos wi def nii ma ne waa nijaay lii lu mu doon lan moo am lu lay melti mu ne ma dara ma ne ko maa ngi yuuxu de mu wëndeel bopp mu ne ma mm, mm, mm. ma ne ko damay yuuxu di mu ne ma bul yuuxu nii rek daal dina bul yuuxu ma daal di bàyyi jékki mel ni lu nelaw ma daal woote fekk sama benn doom a ngi fi woon xaadim faal ñu daal koy fëkk ak bàyyi mari muub sama rakk ñu daal di jàpp njaga génne ko ñu ngi ci hôpital la daante principal yàlla nag dogal na soluma sax daal ndax damaa tiit bi ñu diggee principal ñu jël ko dugal fi ñu ko tegee appareil bi appareil bi tàkk ruus fay ñu tegaat ko ko mu tàkk ruus fay mën na cem kii nekkatul ñu may nax foofu nag laa gëj a xamee dara ci Njaga Mbay ndax boobu jaxasoo naa xamatuma dara ci sama àdduna tam lii la. Njaga Mbay li ma ci marqué bari na nit koo xam ne dafa nekkoon sa wéttal ngeen di ànd guddi ak bëccëg muy waxtaan ak yow di diisoo ak yow dara musu la metti ci moom man dara musuma metti ci Njaga te lu ma mës a bëgg lu ne ànd na ci man kooku toujours mi ngi ci sama xel du ma ko fàtte mukk damay fab yàlla teg. xam na nag bu yàlla soxlaa ku soxla ñàkk nga wante wax dëgg yàlla moom du ma ko fàtte du jóg sama xel bëgguma tam dara xooluma tam dara billaahi wallaahi taala moo ma gënal sama bakkan bi baa mel ni Njaga Mbay baa ma ko gënal ndax fu mu ma tegoon la ak fu ma ma féete woon famille bi moom amuñu jafe-jafe ndax famille bi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xam nga ñun famille Gawlo benn bopp lan ay mag ak i rakk lan ak i ndey doom kenn du ci am benn problème boo xam ne mooy nekk suñu diggante ak suñu biir famille famille benn la wax dëgg yàlla suñu famille jàmm rek moo fi nekk amuñu benn problème ñoo bokk ndey ñoo bokk baay cër buñ la war a jox ay doomam ay say rakk lañ man ay doomam samay rakk lañ samay sang lañ tudde nañ ma doom ma mu jëmm la léegi kon kooku cër ba nga am ci kër googa tax na waratoo faa am dara lay man a metti man foofa aw ma fa dara lu ma naqari ndax sama tura nga fay daagu te maa ngi sant yàlla daal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jàllaleel daal ba mu egg daal fa mu bëgg egg ci njàngam ak yëppam daal. waaw njaga doon na yëngu nag ci loo xam ne artiste senegal dina koy def rek doon na ko def ndax njaga poète la woon ci li mu nekkoon. Njaga Mbay kenn la won koo xam ne poète la ci lim nekkoon Njaga fi mu toog fi la doon xalaate li mu war a wax bu amee lu muy way fi mu toogee fi la koy waye dama daan wax man Njaga damaa jaaxal ndax man Njaga jaaxal nga ma ndax yow man yow doo xala doo répété mu ne man du ma répété ndaxte bu ma duggee ci milieu milieu bu ma dugg rek xam naa lu ma fa war a wax ak lu may way loolu la daan def yàlla nag it dogal na ne du waa Lutteur wax dëgg yàlla yàlla rek laay waxal ndax man sama bàmmeel laa toog ta paase naa loo xam ne dootuma wax lu lu newul wax dëgg ba mu nelawee ba nëgëneet lu ñu fa war a am bu néew ko bari dinañ nu ko jox bu jox waxtu wa jote man su ma mënee dem dinañ ma ko jox su ma demee su ma toogee woo leen sax téléphone dinañ ma ko envoyé mu ñëw ci man kon loolu bu la koy nit di defal it da leen di sant gërëm leen di ñaan yàllaat yàlla yàggal taxawaay bi man loolu rek laay ñaan bi ci topp mooy sama boroom kër man Njaga Mbay Tataguine la dëkk Fatick la nekkoon fala la jànge fa la defee léppam président Fatick la dëkk ma di ko nuyu te di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm ci réew mi moom président Sénégal yal na ko fi yàlla may jàmm lépp lu mu yootu ci lu baax it yal na ko yàlla def ndax man dama koo bëgg dama bëgg Macky Sall barke Seydina Muhammad dama koo bëgg bëgg naa ko bëgg naa soxnaam ndax première daam buy kuy ku baax war koo bëgg ndax day jigéen ju am jom di jigéen ju gore di jigéen ju maandu di jigéen ju am lislaam du mer bëgg ñëpp di def lu baax nag ci àddina bépp ñëpp xam na mi ngi def lu baax kon dañuy ñaan yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak Alaaji yàlla saxal ko fi ba yéene ju nu am ci Sénégal yàlla na ko yàlla yeggale ci barke Seydina Muhammad man benn feebar laa am muy bëgg koo gis bëgg koo am te awma ko ay xëy na dafa jotagul lu jot yomb bind naa ko fukki leetar ak juróom première daam bind naa ko fukki leetar ak juróom moom première daam ndax yërmaande ji mu am ci doomu aadama ak yëg gi mu am ci doomu aadama ak jàppale gi mu jàppale boroom këram sama yaakaar ne jigéen ju baax bu dee jàppale boroom këram war nañ ko ne jërëjëf kon première daam dañ koy wax jëf di ko ñaanal jàmm man sama problème mooy bëgg naa koo am te mënuma koo am wax dëgg yàlla ndax jànkonte naa jafe-jafe yoo xam ne yàlla rek moo xam yàlla xam ndax ndog du ñàkk te yàlla def na ma am ndog bu yàlla wàcce ci man kon su sañoon dinaa ko gis ndax lu baax li muy def ma man koo gis loolu am na may sant ñëpp nag di ñaanal réew mi di leen ñaanal di ñaan xéewal yàlla wàcc ko ci réew mi musiba ak balaa bi yal na ko fi yàlla teggil yàlla buñ ko gis rajo bii nag yal na ko yàlla yonent bi ak Serigne Touba saxal ndax ñun lu ñu ñaan dana ñaan te yàlla tax ak yonent bi ak sëriñ Touba ak El Hadj kon yal na fi yàlla wàcce xéewal ak sutura ak taraanga ñuy ñaanal nag Alaaji Njaga Mbay maa ngi koy ñaanal ndax ñaan gi li ma xam ne ñaan gi bu ma ko ñaanalee dina nangu damaa dem màkka jóge màkka ñetti fan laa def moom yàlla jël ko ma muuru ko ci ñeent fukki guddi yoo xam ne lu ma ñaan sama borom dana ko def kon ñal na yàlla yokk leeram ñam fa fekk ak ña ko fekk ak bépp jullit bu tëdd yemal xiyaam ci barke Seydina Muhammad